et di rafet lu aussi commentaire yi ñuy jot parce que am na solo trop gis nañ ni ñu ngi ciy génn idées yi rafet rafet di leen rappeler encore une fois que rek numéro bi du group nit ñi parfois ñoom ñoo tàmm rek bu ñuy envoyé message naan salaamaaleykum sama waa group groupe salaamaaleykum sama waa kër maa ngi leen di nuyu affaire yooyu noonu mais numéro bi du group képp koo xam ni da nga bëgg a participer ak ci série bu mu mën a doon da ngay jël sa vocal bi rek nga envoyé ko directement ci numéro bi. incha allah buñ ko jotee dinañ ko dugal ci kàttanu borom bi. di leen wax ni aussi tamit képp koo xam te ni si nii bëgg nga terrain wala bëgg nga kër buñ tabax ba pare wala oto wala appartement ak foo ko mën a bëgg boo nu woowee incha allah ci numéro bii nii dinañ la ko wutal ci kàttanu borom bi. donc affiche bi moo nekk noonu ngeen di gis muy terrain kër appartement ak lu ngeen mën a bëgg rek bu ngeen wootee incha allahu dinañ leen ko wutal alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo cette fois-ci nii ñi ngi koy def ci série bii di mœurs la brigade de femmes et di leen wax aussi que li ñuy wax ni suñu avis personnel la képp koo xam ne am nga ci xalaat mën nga jël numéro bi nga envoyé ñu vocal ci whatsapp bi incha allah dinañ ko jàllale. donc avant tout ñu bàyyi leen ngeen déglu audio bi nga xam ne ni moo ñu poussé à ce ñuy def vidéo bi ñu dikk continuer waxtaan bi. salaamaaleykum salaamaaleykum yéen waa Sénégal salaamaaleykum yéen waa série bi di maîtresse de kii nu ma tuuma adresse euh, brigade des femmes dem suñu épisode bopp gisuñu suñu bopp gisuñu suñu bopp nee naa ko femmes yu bees yi nga xam ne ñëw nañ non derm eh, cigarette yi nga xam ne ñu ngi ko utilisé suñu biir série ñun namm kon ñu ci foofu bëggoon nañu daal jigéen ñi def comme parce que gis nga Arcel euh, rôle bi nga xam ne moom la yor. rôle boobu am na doole rôle bandi la da ko ci da nga ciy gis sa bopp te doo gis euh, feneen foo xam ne jigéen war na ko mën a roy série yi dañ ciy roy bu baax a baax mais daal cigarette bi daal rafetlu ko dara dara dara dara dara rafetlu ma ko damaa paar man rafetlu ma ko jigéen yi tux cigarette daal rafetlu ko mënoon nañ def seen te bàyyi cigarette bi. man euh, série bi dama ci namm ay femme de valeur ay femme de ndayer femme sa jigéen Sénégal yoo xam ne nii xam nga sol lu rafet wane lu rafet bañ. ñu parce que ñu ngi leen di noot mais jigéen bu ñu koy noot mu bëgg a génne mbon bon wala mu bëgg a génne benn style boo xam ne ni non non non man gisuma boor boobu du ma ci gis sama ba mu bëgg a gis ji bëgg jigéen ñu mel ni ana jigéen ñu mel ni yenn ancien staff yi nekk ci jigéen ñooñu parce que jigéen royu waaye lañ ay femme de ndeer lañ am na lu ñuy wanee mais daal nouvelle fille nouvelle fille yi bëgg a ñëw ci série bi daal li ñu bëgg a génne ni noonu non non non ñu ngi bëgg a yàq série bi te man série bi dafa nekk loo xam ne ni dafa ma marqué trop trop trop parce que day dox sama biir histoire dama ciy gis sama bopp carrément carrément day dox sama biir histoire de mère alors chers internautes ginnaaw bi ngeen dégloo audio bi nga xam ne moom la waa ji def lii moo ma poussé à ce ma def vidéo parce que narum woon def vidéo li tax narum woon def vidéo parce que dama jàppoon ni xëy na ñëpp comprendre nañ li nga xamante ni si ni moom la waa Evenprod bindoon ci biir vidéo bi muy bu ngeen seetloo moment bi nga xam ne dinañ wane xale bu jigéen biy tux am na benn phrase bu ñu bind ci suuf vidéo bi à ñu bind ci ab yu dangereux pour votre santé fumer tue maanaam tux baaxul ci sa wér-gi-yaram te tamit tux dafay rey te loolu yaakaar naa kenn ku ne pratiquement même boo ci musul teg sa bët tamit dégg nga ko te yaakaar naa sax ku ne gis na kuy tux feebar yi koy attaqué ak kiy tux pour moom ni muy mel donc comme moom nag lii la gis ci film bi mu koy ñaawlu ba yónnee ñu vocal yi ñun nag ñu ni bon nañ ci def vidéo pour jéem ci yaatal indi ci ay leeral su ngeen fàttalikoo ci ginnaaw cas bu mel nii indi woon na fi coow temps yi ci ginnaaw ci série maîtresse d'un homme marié mooy bi ñu wanee joor mu toog ci restaurant bi di tux si sax mais cette fois ci ak Evenprod ñoom au moins lancé nañ benn message ci seen biir série bi wane ni tey jii nii tux baaxul ci wér-gu-yaram te tux aussi dafay rey mais sama souci lenn rek la mooy ñëpp mënuñu liir comme waa ji nga xam te ni moo yónnee audio bi xëy na moom mënul lire wala aussi tamit bu ñu seetaan bi xelam demul woon ci li nga xam te ne moom lañ bind donc au moins là Evenprod jël nañ seen précaution ba mën a lancer waale message boobu noonu ci biir mais comme ni mu leen ko waxee rek sama souci mooy man ñëpp mënuñu liir donc xëy na tey film bi fi mu toll wala rôle bi nga xam ne moom la xale yi jigéen yooyu wala incarné tux mënu ci ñàkk xëy na ñoom noonu lañ ko jàppee moo tax ñu def ko ba pare lancer message boobu noonu donc laa duñ ci yàgg lu bëri mais li ñuy lancer waat rek mooy. képp koo xamante ni si yaa ngi tux cigarette yow sa wàllu bopp xam nga ni li ngay def nii baaxul parce que fan yi ci ginnaaw defoon naa ci benn interview ak koo xamante ne day tux cigarette moom mu reconnaître carrément li muy def baaxul mais daf ko mënul bàyyi parce que tàmm la te li ko ci dugal mooy àndandoo bu bon conseil bu bon dafa amoon ay problème ñu wax ko ni ko boo tuxee di nga fàtte sa problème et moom dem na ba xam te ne liñ koy wax du dëgg mais dem na tamit ba fekk ni dafa accro ci cigarette bi ba pour l'instant nii moom suy waxtaan ak man danaan bëgg na ko bàyyi mais mënu ko bàyyi parce que dafa dem ba nekk loo xam te ne su ko jëlul rek day am lu ko manqué. ñuy dellu encore une fois di lancer waat message jeunes yi nga xamante ni ñu ngi topp séries yi di leen suivre donc séries yi la plupart du temps du ñu lépp a baax am na ay côté positif am na ay côté négatif donc tamit day baax yow jeune bi ngay jéem a topp li nga xamante ni si série bi mi ngi koy joxe mooy lu mais nga a def loo gis rek copier ko. te jamono ji dafa toll foo xamante ne si nii xale yi dañuy roy parfois sax dañuy roy ba dàq parce que bërki démb woon njaay rek yàlla xam na ko am na benn jeune bu mu envoyé message ni ma daa am benn vidéo bu nga dugalal ma ko man ko vidéo lan la mun ma vidéo ku toog di tux chicha maanaam dafa doon plage àndoon ak xaritam ñu doon tux ay chicha bëggoon ma ma jël ko dugal ko sama chaîne YouTube man leen lool du ma ko mos a dugal parce que man damay xeex loo xamante ni si nii baaxul ci société bi donc loolu su ma ko defee du ma nekk exemple si ñi nga xam te ne ñu ngi may topp muy wane ni inconscience bi nga xamante ni si moo nekk ci jeunes yi comment se fait-il yow benn xale mu toog jël sisa di ko tuux filmer boppam ba pare tourne bëgg mu dugg ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko gis mu am bon sens mais ñoom loolu dafay nekk benn ngóor ci ñoom alors que xam ne li ñuy def noonu ëllëg mën na leen a yàqal lu bëree bëri parce que image yi ñuy def noonu di photo ci sisa yi di ko dugal ci réseaux sociaux yi ëllëg mën nga dem ba nekk kilifa. ñu génne la image yooyu noonu tegal la ko mu yàqal la lu bari mais moment bi ñu koy def seen xel du dem ci loolu ñoom li ñu bëgg rek mooy nit ñi di leen gis diw de mi ngi tux shisha xam nga rek am na ci xale yu jigéen yoo xam te ni loolu ci dañ lay fenwe affaire yu mel noonu yooyu donc moo leen ci neex mais xaatul ëllëg nan la war a mun demee donc ñu dellu di leen rappeler rek tux moom képp koo xamante ni si nii sa xel mu ngi ci nga def ko li ñu lay wax mooy nanga ko ci génne ba mu set wicc xam ni boo ci duggee sa xaalis nga fay yàq yàq fa sa wér-gi-yaram te mënoo ci jëlee dara loo xam ni mën na la jariñ ëllëg gisoo fi kenn kuy tux ba am ci lu baax toujours ay feebar la ciy jële wala mu jaare fa yàqu donc tey nit ki booy roy dangay ngay loo xamante ni si ni mën na la jëmale kanam alors message boobu lañ di dinañ ko lancé donc ñu ngi leen di tàggu di leen jox di daje ci beneen vidéo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 ñu kontaan ci loolu parce que loolu macha allah bu ko xale yi déggee dina tax lu bari kenn du leen ci dugal parce que li ñuy wax en général problème mënul régler problème parce que cigarette problème la drogue problème la leneen problème la ba nga xam ne bu fekkee ne da nga nekk ci diggante ñu ne la jëlal nangam day tax nga fàtte loolu ay mirage la rek te dafay loolu moo sànk suñu doom yu bari ñu buggoon nag genre témoignage yi ñi nga xam ne ñu ngi drogué wu. wala ñu ngi tux cigarette wala ñu ngi prostitué wu ñu joxe ay témoignages yu mel nii wax tous les inconvénients yim leen di jural parce que cigarette mënul régler problème c'est pour un temps très court boo moment bi nga koy tux ça te fait oublier mais bu amee quelques minutes rek après tu reviens ci ci ci cigarette bi te dépendance doomu aadama yàlla daf ko mooñee noo xam ne bu xasee am dépendance ci lu lépp lu mu munti doon rek daf koy sonal te pour s'en débarrasser c'est pas facile du tout xam nga moom illaa di dina crever sa budget sa santé ak sa lépp parce que xaalis bi nga koy jëndee xaajoon na ca kër gi bu fekkee nga nekk père de famille tu préféreras fumer ta petite cigarette kër di ko joxe nit ñi di ko lekk te xam nga loolu c'est un problème ñuy ñaan yàlla ñëpp dégg cri du cœur bi ba nga xam ne ku ci bëggoon a tàbbi sax doo ci dugg parce que drogue cigarette baaxul dépendance rek la indi te ça ne règle aucun problème la preuve boo koy kii moment d'euphorie bi bu paasee rek nga euh, euh, redescendre sur terre bëgg ko defaat kon ba nga xam ne kon amul njëriñ parce que dina yàq sa santé dina yàq sa bopp dina yàq sa virilité bu dee góor da ngay dem ba xale yi ti teel a tëlee drogue bi ak cigarette yi moo leen ko yóbbee mooy ñaan yàlla lii c'est un cri du boo xam ne ne ko xale yëpp dégg xam ne amul njëriñ baaxul te en général les guérisseurs qui te mën nañ la wax pour nga bàyyi ko new ma du dëgg de mais le plus souvent c'est pas vrai day fekk nga nga nga nga dem ci ba nga xam ne boo ko deful sax tu deviens malade xam nga loo xam ne nag dangay jël sa xaalis di ci def muy yàq sa santé di yàq sa esprit yàqal la sa àdduna vraiment loolu euh, yal nañ ci yàlla musal te xale yal nañ ko dégg ba nga xam ne ñu xam ne problème munul regle problème problème problème la drogue problème la cigarette problème la loolu yëpp mënul régler problème daf lay yokkal problème indi la ci dépendance dangay dem ba yow boo ko deful sax da ngay mel ni ku kay ni mu jaral la lu ne xëy na cigarette sax amaana yeggul foofu mais les drogués boo gisee ñuy euh, tafu nit ñi di rey nit ñi di agressé nit ñi parce que bu ñu tolloo ci manque rek dañuy mel ne ils ne sont plus eux-mêmes il faut ñu rey nit wala ñu def dara lu bon pour mun a am saa même bu ñu naree rey seen yaay wala seen papa sax dina leen ko jaral mais nañu am xaalis bi ñuy jënd ci drogue bi kon nag na si ñëpp bàyyi xel cigarette amul njëriñ drogue amul njëriñ leneen amul njëriñ yal nañ ci yàlla musal suñu doom yi yal nañ ko dégg ba tax vraiment ku ko doon defit nga bàyyi ko ku ko deful woon boo amee problème ñu ne la tuxal cigarette day tax nga fàtte c'est pas vrai nañ ko bàyyi bu ci kenn dugg parce que ku ci dugg problème kese kese kese la lay indil. moom mi koy def nii di def témoignage bi ñu ngi koy laaj ndax feebar na mu ne feebaru ko feebaru ko ñaanaluñ ko ko yàlla mais bu ko yàggee def au bout d'une dizaine d'années vingtaine d'années dina attaqué say poumon nga am ay problème te àddina jaru ko nga nekk ndaw mu yàq sa àddina yàq sa euh, euh, virilité vraiment dara dara jaru ko parce que nicotine bi ci nekk goudron la te dafay tafu ci sa dënn te boo ko yàggee tux da ngay am sa xat soo xam ne kenn dootu ko mun a faj boo gisee un bu ñu la wonee say poumon da ngay tiit waaru yàlla day mel ni lu ñu doon saaf xam nga loolu problème la te feebar la te boo ko yàggee def au bout d'une dizaine d'années rek di nga commencé di flancher kon nag yal nañ ci yàlla musal xale yi bu ñu essayé drogue bu ñu essayé cigarette amul njëriñ problème kese la leen di indil mais le plus souvent ay àndandoo yu bon ñoo la jikki naan booy defal lii soo ko deful ñu ne la innocent nga nga nekk innocent te wér am sa lew gi yaram moo gën nga nekk guerrier te dee xale yi nañu gëm loolu cigarette mënul régler dara dara dara drogue mënul régler dara nañ ko bàyyi waaw may yaakaar ne xanaa ñëpp dinañ ko dégg vraiment c'est un cri du cœur boo xam ne man mii sama tien moo tax ma di ci wax suñu doom yàlla nañ ko dégg yàlla bu ñu commencé drogue yàlla bu ñu commencé cigarette loolu yi buñ ci jëm lenn baaxul day yàq seen santé may yem fii ba beneen yoon di remercier tous les internautes la qui nous suivent avec un très grand intérêt